ci xew bi tey ku fi mën a taxaw na tekk naa fi dara te àndul ak seen yaay ànduloo man kon yaakaar naa du góob ku mën a doon ak koo mën a yaar ak ku mën a doon buñ ci ànd nga loolu du dox kooku moom amul ma sàmb amul ma dem kon seet ñu ngi lay gërëm waaye di gërëm jigéen ñi nga xam ne bu ma leen wax ne defaluñ leen dara dara defaluñ leen ko waaye saa buñ leen wooyee ngeen ñëw wuyu si bu doon njëriñ ngeen di topp buñ leen wooyee bu leen dara nag te yàgg la ñoo ngi yéen ci politique bi waaye am nga fi ngeen ñu jàpp am nga fi ngeen ruus ba fii waaye kon du ngeen fi ñëw kon ñu ngi leen di sant ci waa Sexaw gii di jigéen ñi Daaru Marnaan ndax fii mooy Daaru Marnaan. ndax Daaru Manaan ñetti pay la am fektoo bi nga xam ne du sëñ Daaru Muxti sanc lii ci Daaru Manaan ñetti téeméeri dong yi nga xam ne moom la defoon ñu yóbbu ko Daaru ak fii te yooyu yàlla def ko ci loxol borom Daaru Musti Mbarka moo seen Mbarka moomee ñoom laa am ginnaaw yaa nga fa ñëw jàppal nga bu baax loo ma war a jox soo ma dëgg da nga ko jox sama dugg ci daaw na nar ba tey leen lu fi dégg mu jaroon ma baatu seen Mbarka moo xam ne rek ñu ko ci taxawaay bi ñu doon andil la ko pour incha allah ñu commencé ay raccordement balaa élection yi ci wayi moom bu xaar moom dina ko bi mooy napp yi nga wax napp yi itam euh, bu subaa incha allah dinañ fi yebal technicien bi nga xam ne moom moo nekk Sénélec du ñu monter ay laaj defe naa ne loolu moom moo élection yu ñëw dañuy ñàkk daal nga xam waaye yaakaar nañ ne ren bii moom changement dina am ndax sëriñ bi dugal na ci loxoom yow mii sëñ Cheikh Ndiaye nga dugal ci sa loxo mbaa ñu jël ku nekk dégg na engagement yi mu jël loolu ngeen def nag da xam ne incha allahu rabbi président lépp lu xew fii wala lépp engagement bi ngeen fi jël dugg na ci xam na bu baax yéen ji sëriñ bi am ci moom incha allah comme wane ni waaye li si kanam de lépp wala lu mel ne poste de santé yi moom bu président deful sax man soxna maa xam ne dinaa ko def ko président comité électoral bu Daaru Marnaan ak Ibra Sall mi nga xam ne mooy secrétaire général bi waaye nag ki nga xam ne mooy président d'honneur Marnaan mooy Baye Modou Diop kooku mooy Baye Modou Diop mooy chef bi di wax def nañu damaa dafa boo Baye Modou Diop boo wax ne ma jël naa la teg la ci loxo Baye Modou Diop mu jàppale la ba li nga bëgg ci Daaru Marnaan nga am kon nag muy man mii muy euh, Mor Gueye mii ak Ibra Sall ak équipe bi yëpp ñoom dañu fas yéene topp ci ginnaaw Baye Modou Diop mu jiite liggéey bi

man ñëw naa sa kër ñëw naa sa kër ñëw naa sa place ànd ak Fadal waaye damaa bëggul ku ñuy dee damaa bëgg si ña ngay dégg nga di ma dee mo tax Mbàkke ma ñëw Mbàkke borom Taïf boo gisee ma di ko wax man damaa naqari nii xuma de ndax lu wax dama koy dee ma cay dellu waaye Mbàkke doo naxe li nga am ñàkk naxee la ko may boo doon naxee doo ko am boo doon naxee doo ko am fii nga toog dëgg la fi indi dëgg mooy dëgg mooy njëkk mooy mujj Mbàkke balay sa yàlla na la yàlla àggaleel sa sago man soo gisee ma ñëw dëgg rek ci laa xam te man yow laa àndal tey yow laa àndal su man ku may ndax du ma ànd moom ku may ndax yow du ma ànd ak yow. ñun nag sant nañ maam xarit mi soxna maam xarit Mbacke ndax dafa am lu luñ xam ci moom lu baree bari ndax kii nga xam ne da di sama baatu sëriñ jiitu woon ma ci kër gi ba tey ñu bokk kër ga mu di soxna mbeen mii ñoo ngi koy sant bu wér a ndax defal na ko jëf ju rëy a rëy te loolu daf di lu rëy te noonu kontaan nañ bu baax a baax bu doon naxee naga du ànd ak soxna Mbène ba naga ni kon nag képp ku woo war nga koo wujji ndax du naxe ji kii waxoon dëgg la du naxe ñoo sant yàlla bu baax a baax a baax ñoo ngi seen si sa ginnaaw sëñ Sam Seck Ridial lépp loo ne loola rek ne la ñoo sant bu wér a wér am nañ ci ndax man Mbène Sène ku xam Seex xam Ridial xam nga ba. kon su ñëwee soxna maam xarit jël na mbeen seen yóbbu ko màkk loolu ñëpp da koy xam te lu waaye nag bëggut a ku koy nax soxna maam xarit du naxee waaye bëggut a ànd ak koy nax te man ku ma seen nga koy nax su yegsee dama naan la dëppal du naxee nag waaye bëggut a ku koy nax soxna maam xarit ku fidèle la fu mu jàpp la fay jàpp te moom dara ñoru ko du dimbale jigéen ñi ci Touba moom yow soxna yow xam nga xam nga ci dara waaw. léegi nag seex si ñooy notable yi Touba te loolu yéen Mbàkke xam ngeen ko leenu am seen sëñ Tuubaa seen ko defal te dun duggantu ñun foo nu fekk ña nga xel koom ñu ngi ci seen ndigal yi gën a metti kon maanaam lu engagé wu rek ngir ne dañ koy def loolu dañ ko ngëm-ngëm nañ ci àndal ca danga koy def ca dañoo bëgg a battre campagne politique porte à porte dugg ci biir nit ñi maanaam porte à porte ba nga xam ne kàddu gi jox président Macky Sall ne dina gagné Touba ñu fas yéene loolu am ba mu xam ne lan ko promeloon loola dana am loolu nag Mbacke boo nu ci jàppalee mën na am. ma leen di wax ne euh, euh, mouvement bi dafa daw yaram. ndax ñun dañuy topp jeexitalu Serigne Touba kon tey bu ngeen demee ba yéen sëti seex si ngeen dajaloo créé mouvement bu tudd 313 war a taxawu liggéeyub Serigne Touba bi war a taxawu njabootu Serigne Touba gi ñun ñu ngi leen rafetlu mouvement bi même bu ngeen ma tàllalu toon loxo ci politique bu ngeen ma tàllalee seen loxo danaa leen jàppale ndax yéen ñii kat yéenay suñuy liet naa te nit du dem xeex bàyyi ay liet naa ndax saa boo demee ci xeex bàyyi sa say leet naa defe naa di nga wàññeeku ak kersa kon yéen yéenay suñu liet naa ci dëkk bi a taxaw njabootu Serigne Touba gi yéen a war a taxaw sëti Serigne Touba yi ci politique ak ci lu dul politique ah li leen yàlla suturaalee nag mooy ah kay leen ba ngeen jaaroon ba am fa lu leen naqari ak fii ngeen ñëw jaar ko ci man benn rek la xëy na ah, am na ci yoo xamante ni le boo ko mënul waroo koo digee waaye nag nangeen jàpp ne kooku ak man benn la xëy na leneen moom dafa xaw a juum rek wala mu fàtte waaye daal li ma leen mën a wax mooy ma sama moyen bopp yi nga xam ne am naa ko di ci jàppale président ci dëkk bi dinaa leen ci jàppale ngeen campagne le président. waaye tàcc leen loolu waaye. ndax fi mu ne moom campagne président ci biir Touba maanaam ñun ak jaamu yàlla lañ ko def. ndax digalu sëriñ Touba moom jaamu yàlla la. te sëñ bi nag joxe wun digal waaye joxañ na junj nag doy na borom xel. beneen bi ci des it mooy seen diggante ak président man damay wax ne président. interlocuteur la xawoon a manqué Touba waaye président de la république boo gis buñ ko dee ñii ñooy mouvement 313. mu am wax ju wér ju jóge ci yéen dem ci moom yaakaar naa bu ko déggee lay seen soxla lam ca man dana ko ci def donc loolu moom euh, na ci seen xel del bu baax ngeen jàppale ko ngir mu nga mën a gañe Touba ndax wax nga wax ji yëpp bi mu dekkee seen déclaration bi rek daanaka ca suba ga wala ci ginnaaw suba ga déclaration ba mu def am na jeexital ju nga xam ne wax na ko te ñu bari booba seen xel dem na ci yow si yéen kon daal da ngeen xam ne victoire président fii ci Touba mm-hmm. yaakaar nañ leen ci bëgg nañ ngeen jàpp ci te jàppale ci président te président nag as gor la soo xam ne képp ku ko jàppale ci lii mu ut mm-hmm. bis bu faloo incha allah du la fàtte man nag tàllal naa leen sama loxo dinaa leen jàppale jébbalu ci yow doon say taalibe foo ñu woo guddeeg bëccëg ñu takku fa yéenee ànd ak yow ndax soxna maam Khady ñun amuñu sa fay ndax mouvement bi dafa sonn yàgg di daw mbedd mun ñu ciy génn di yuuxu ci rajo yi di yuuxu ci tere yi ndax Mbàkke rek moo ñu ñor ñun leneen ñoruñu lu dul Mbàkke Mbàkke amul dara Mbàkke ay station kese moo fi ne station xam ne bu doon lakk tey doo am ku ko fay quand sapeur sax waroon nañoo jege fii ndax amuñ dara dara amul mbàkke réservé wu desoon ci dëkk bi ñu yaakaar ko mu toog jaay ko waaw ñun amuñu dara mbàkke amuñu dara ndax ci lii ñu ne doole lañ ko jële ak fulla ak fayda waaye nag duñ xuloo duñu xeex ndax bañ dalee def mouvement mbàkke moo ñu ñor yàgg na lool ginnaaw nag yow ñi ngi lay doog gis yaa ngi doog a ñëw te yaa nekk ci ci président nañ jàppale ñun waa jigéenu Mbàkke ak xale góor yi nga xam ni ci gaar bi la ñuy toog amuñu benn liggéey mu jàppal leen wasalaam. amul kenn ku ñuy noonoo amuñu ay xaar ma yàlla xeexuñu xuloowuñu dañoo def suñu mouvement taxaw di dimbalante suñu biir di dimbali ñi nga xamante ni ñoo ñun ñoo leen tane di dimbali ñi nga xamante nii di jàppoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu tane loolu moo waral mouvement bi ñu daal di ñëw ñu dajale ànd ak président Serigne Moustapha Kama pour ñu taxawal Mbacke ñu tuddee ko nag mouvement Mbacke moo nu ñor soxna si ñoo ngi lay ziar bu baax kàddu yi gudd na waaye nag nekkul na loo xamante ni faaw ñu wax la ko ci bëgg nañ mouvement bi dañ ne képp koo xamante ni mën ngaa jàppale mouvement bi mouvement bi dana la jàppale ñun mouvement bi tay ñun dañoo sant bu wér parce que surtout Serigne Touba moo ñu seet dañ ciy sant soxna si li ma bëgg mooy jàppale ñu man jigéen ñi rek laa am dégg nga dégg nga sax ñi ñuy waxee at xale yi man ouvrier laa lépp lu ma am lu nekk man dama koy bokk ak ñoom moo tax mu demee nii parce que heure bi ma woote dafa metti soxna si tey man maa la wax daan man maay ki la njëkk a tàntal fii nii.

Baye Moussa Niang mu Serigne Saliou moo la boole ak moom Baye Moussa Niang nekk kilifa koo xam ne ñëpp dañ ko ràññee si keppaaru Serigne Saliou Mbacké moo tax mu am yëg-yëgu ñëw fii Mbacké mais fii jàpp nañ ne liñ fi waroon a def ci politique ñun Touba mooy suñu zone fa lañ war a nekk di fa liggéey. waaye nag fii am na suñu frère yu fi nekk nekk jàmbaar te ñun ñu mën ko seede waaye gannaaw ba Baye Moussa ñang nag moo leen boole ak moom moo tax mu jóg ñëw fi ci ndigal pour que ñëw ci seen wet wan leen ne leen yéen ay doomu département bu Mbacké ngeen mais également tamit ay taalibe Serigne Touba ngeen te moom Serigne Touba la fi nekkal.